Coumba Ndiaye la tudd Jaañ la sant xale la daal en tout cas xale bu teel a kii daal sawar xale bi macha ñetti atam sax motul. dimanche bi ay booru 13h maag papa ji fàllu dañoo toog nii ci biir kër gi di ataaye nekk ci suñu affaire yaay ji juste la ko yónni ba mu koy yónni sax. Ma ngi tooñ benen euh, beneen copain bu fa nekk di tooñ xale bi quoi après ci la dem jënd ci bikit bi bikit bi ak kër gi ñoo jàkkaarloo parce que ñu bëri ñoo ngi naan fi mu ko yónni dafa sori mais bikit bi ak kër gi da ngay génn ci kër gi dugg ci bikit bi fet mu yónni après ñu toog ba mu añ gisul xale bi quoi papa ji moo ko naan xool ko kër ñoom isa beneen dëkkandoo bu nekk foofu juste ñu dem fofu gisuñu ko par la suite ñuy tok di wër ci koñ bi juste la benn xale jóge fii daw woo si yaay ji. kii sax laa jëloon décision pour yónni kii magam la maa ne jaw kaam yónni la mu dégg lool mi ne ma yaay indi ma dem si bitig bi fii en face rek soriwul mi ne ma indi ma dem yaay jëndal la jumbo ba mu demee nag ñëwaatut léegi ma wër si koñ bi yëpp ma dem si bitig bi ma ne borom bitig bi ana kumba mi ne ma kumba dem na jaay naa ko ba wéccu ko léegi ma dugg si kër yi fii ni ñuy fréquenté ma laajte ni ma gisuma kumba après ma toogaat tuuti taxaw sama buntu kër eh, kii ma seen benn xale di daw di ñëw mi ne ma ma ne ko yow diw di soo kumba sama doomu dëkkandoo ma ne ko di soo kumba mi ne ma dis naa ko kay mi ngi tëli ba waaye dafa takk deret ma taseeg sama doom bu jigéen bu am 9 ans muy ma seen ko muy yéeg di ñëw ma ne ko waa kay kay tuural ma mbalit bi sama doom bi jël mbalit bi yéeg ak moom ma ubbi bunt bi dugg taxaw maa ngi def fas ci lii bi nii lal bi sama doom mu ngi tëdd dëpp daf feebar ma ne ko yaa ngi tane mu ne waaw man ko naan nga garab mu ne ma waaw ma ne ko xanaa sa rendez dafa sore mu ne ma non sama rendez-vous sore mais xam naa mettitu bopp la rek mbooyee beeg yooyu ok noonu sama doom bi daw ñëw ak vitesse indiwaat mbuusu mbalit bi ci biir néeg bi ma ne ko yow lan nga ma yabee ba tuuraloo mbalit dama nga tuural ma mbalit bi noonu mu yéegaat waxuma dara mu yéeg ak mbuusu mbalit bi ci kaw te bi mu yéegaatee ak mbuusu mbalit bi man ma wax ak sama doom bi di génn moom mu wàccaat sama doom bu jigéen bi di wàccaat di ñëw mais bi mu demaatee deuxième fois bi sànni na mbalit bi noonu ma dégg xale bi di jooy man kon da nga dóor doomu jàmbur ci kaw mu ne ma noonu dóoru ma ko xale bi di ma ne ko xale bi koo àndal wuyuwuma parce que am na benn famille boo xam ne dañuy ñëw di foosi fii ay xale mais des fois dañ leen di dàq pour bañ ñu daanu fi ñu am problème noonu ma daal di ne xale bi ñëwal wàccal nga dem wuy sa yaay parce que fii dafa am ñu fii nelaw dañuy fanaanee liggéey demal nga ñibbi noonu xale bi wàcc romb ma may bëgg may dem ci cuisine bi noonu bi may dem ci cuisine bi bi xale bi wàccee ci escalier yi mujj yi mooy boo génnee fi rek escalier yi nga jëkk bi xale bi di bëgg a wàcc rek ma gis yëreem yëpp yàqu. te ñun ñoo ngi yaakaaroon sax oto da koo laal wala leneen leneen ak leneen quoi après nag ñu ñëw nag fekk kër gi bari nit nit ñu tee xale bi xam nga. ñun mënuñoo xam lu xew si lañ laaj ñu ne ñu dañoo yegg ci kawam par la suite lañ ñëw woo police juste avant police di ñëw sax def na tuuti temps ay 30 minutes 40 minutes xale bi sonn lool nag man maa fippu sax yëkkati xale bi ne dama koy yóbbu. ah anamu doy waar anamu mu jafe sax parce que naqare naa wax na naqee naa xool waaw ah, parce que fekk naa ko sër bu ko tee mu taq deret xam na ci yoon itam tamit même bu yóbbu hôpital tamit mooy sañee nu sañee. déedéet waaw anam yooyu daal naa ko fekkee. gars yi ne ma woo nañ police ba pare si laa dem kër chef de quartier bi Pa Adama Ndiaye woo ko moom ne ko man mun naa yóbbu xale bi parce que kii dafa sonn si laa ko fob noonu dugal ko si oto bi avant ma taal oto bi rek la oto police bi taxaw sama kanam wax ma ma ne leen nag xale bi dafa sonn mënuñu ko xaar par la suite ñoom ñu nee ñu bu leen njëkkee hôpital dem leen police ñu dem police ñu am lu ñu bindal nee leen dem leen hôpital bi ñu dem hôpital Kamba pour xool xale bi. xam nga foofu tamit yàgg nañ fa trop trop sax yàgg nañ fa trop waa niñ fa yàggee mooy parce que loolu 16 heures lañ fa nekk ba heure laalu ñu ko parce que ki fa nekk dafa ne médecin bi mag bi la ñuy xaar pour xool xale bi te xale bu ndaw bu am trois ans 2 ans 3 ans 16 heures ba 20 heures 22 heures dafa yàgg dafa metti xaw naa fa coow ñoom sax ci nee la ñëw leen xool xale bi parce que dañoo jëliwaat beneen sër sax pour muuraat ko ndax sër bu njëkk bi deret kese la dañoo dem jëliwaat beneen sër pour muuraat ko ko man yére yu ma soloon yëpp a yàqu parce que man ak euh, benn femme bu dëkk ci koñ bi ñoo fa nekkoon sa ak papam fa lañ nekk ba vingt de heures ñu soog koo laal xoolal ñu après fa la mujjee fanaan ça fait 3 jours si tey xale baa ngi foofu daal. waa dafa nekkoon xale boo xamante ni bu la gisoon tey dalay songu miin la waaw amul benn problème. mais ak nii ñu ko fekkee démb ba man bu ko fobee sax mu xaw a bañ dafa xaw a metti daal waaw mais buñ sañoon daal ñu xoolal ñu ko bu baax parce que ni ma ko gisee tey dal ak ni mu meloon lu changé lu bëri ci xale daal waaw mun naa ko ñaawlu parce que kër ay locataire la war na xam kër gu ne ku dëkk te da war am buntu quoi tëjee kuy dugg ku ne war na xam diw mooy dugg wante duñ tabax kër noonu rek def ko kër locataire xamante porte bi amul tëju amul dara ñëw rek dugg la loolu moom dafa ñaaw dafa ñaaw trop fi Sénégal la problème amee rumeur dañuy bëri man lu mu bon bon jang naa touti pédophile duma ko neubal bandi duma ko neubal parce que ñun ñëpp la yaq suñu der lekkuñu naanuñu taluñu dara affaire bi ñun la gëna metti parce que le fait que mu bàyyi kër yëpp ñëw dugg suñu kër c'est possible que nit dugg fi doo gis kenn xam nga yeen sama nek kese ngeen gis mu tijjeeku donc man bu may togg añ damay caabi sama nek parce que kër gi ay gardien ñoo dëkk ñaar bu ñu fanaani jee liggéey bu ñu ñëwee 8 heures la ñuy wàcc 9 heures la ñuy tëdd di nelaw seeni jabar duñ fi toggee seen këru famille la ñuy toggee menn man maay togg ci waañ bi te waañ bi dafa isolé wu ci ginnaaw la ne côté douche ba léegi man bu may tëj bu may fii damay tëj parce que boo am na ay nit yoo xam ne dañ fiy weer yére dañ fiy yéeg weeri ko ñun duñ ko gis man moom wax dëgg neex yàlla ku dee yaag sa bàmmeel te ku dee ñu ber la gisuma waa ji gisuma ko su ma ko gisoon dama koy dénoncé

ay xale yu ndaw lañ peut-être daa teel am soxna rek 88 kooku mooy deuxième doomam jommul kenn surtout ay xale ak fi ñu dëkk banlieue bi ñu dëkk sécurité bi doy demewul noonu nit ñi léegi àndatuñu ak seen i sago. ku yar sa doom bu ndaw na ko surveiller nga dem li ngay jëndi li ngay jëndi yëpp ci bitig boo ñëwee def li ngay def ñu bàyyi xale yi ñu yónni bàyyi tayal ku ci am doom bu ndaw buy jàngi nga accompagner ko ba école am man sama doom 11 ans dama kii yam dama yor numéro directeur am heure bi muy wàcc su paasee damay woo directeur bi laaj ko diw lan moo ko téye mu ne ma day def cours mu ngi fi wala lii wala lii.